parce que foofu lañ jógee ñëw fii général Malika koo koy jox. mais général Malika actuellement nii. ni hmm. mu war a mën a bëreel bari na. comme ñan. dugg na ci loowu ay ay ñoom kii mais général Malika ak kii combat la booy booyu booyu booyu booyu parcelle bi. kan la ci ñoom. góor a soog wala góor a soog. waaw ju neex la làmb ju neex la. foofu foofu foofu. ko combat la. général Malika góor a soog. ah mais combat la kañ. Hmm? Kombala la Babacar goro sok general malik Malick combat la. dëgg de loolu combat ah la bu neex. lu neex na de. general malik goro sok tok na lu yag euh, Garga Garga 2. General Malik waaw neex Malik général Garga Garga 2 Ah? lamb lambu te temps yi toll nekkatu fi lamb tollootul foo xamante ne nii ay maa raw diwam raw ma diw lamb liggéey la business la fi mu toll ñaari mbëri da ngeen di bëggante rek promoteur bëgg leen tëgg leen général Malika fi mu nekk nii ci làmb hmm. war na weesu fi mu nekk nii ci làmb parce que gox bi mu dëkk kar boo xoolee gox bi mu dëkk moom rek moo fa am dayo boo xam ne mën na mbëkkante gars yi ci kaw waaw mu nekk champion boo xam ne bul fàtte ne ay agogo yëpp bëri na ak ñoom mhm. ba ëmay ëmma seen junior mhm. champion yëpp yëpp yëpp yëpp la bëreel moor Yékini mhm. tàkku saanam nga ca Demba Diop champion yu bëri la bëreel euh, mbaytin yaa reporté combat ba muy champion bu mag boo xam ne li may wax rek waa goxam waa goxam nañ ko boole seen bopp xam ne champion la boo xamante ne ni buy génn buy génn adduna ñoo ko war a topp buy génn parce que mbër la moo xam ne ngar mi ak jom mhm. ak njàmbaar lay wane ci ay bisam mhm. musul ñëw ci làmb séqi tànk mas ta séqi tànk waaw muy champion bu mag du daw moom mhm. mais maa ngi woon ci adversaire yi pare toj bëri simple bi tamit non non ndaanaan la ndaanaan la ndaanaan la ndaanaan national boole ci adversaire yi adversaire yi adversaire yi ko yiñ la limal loolu même bu neex la bu mbaaw waaw moog Zambala combat bu neex a neex la boo xamante ne nii jaar bi du mën a ñàkk waaw ñaari njol yoo xamante ne nii li leen topp li leen topp mbapat mën na leen yóbbu ba arène ah, waaw combat bu neex la combat boobu noonu même jam téeri mi waaw war nañ def taxaw seetlu ci moom mooy parce que Ablaye Jaxate mi nga xamante ne moo tëgg làmbam bu teeloon feeñ waaw Diam Terry carrière am dina dépassé. waaw lolu amna parce que bëri na ay combat yu bëri ci lamb tay li koy tardel moy ay combat am dañuy sorante. dañuy soré lool dañuy soranté pourtant day mobiliser mbolo mu doy war mom Diam Terry ah. mhm. ya non ko non jóge ba Kayar. non Babacar moo fa nek babakar ku sonu ci lamb la aussi. Diam Terry ah. ah, di ko encouragé waat bu baax diko wax ne ko lamb non la. encourager na encouragé parce que man seetaan naa ko moog Lac Rose Mbapat ñu bëree ñom ñaar. bëri nak la Lac Mbapat bëri nak la Lac Mbapat. la Rose moko daanon ci Mbapat ma feulé ci face Mbapat moom ma ngi tok diko sétane la Lac ko daanon Mbapat moom ñëw na fa lëmbe Mbapat mi lool mais jour boobu noonu dafa bëtt Lac Rose di ko won dooma Lac Rose Lac ko daan ko jël bu rëy ñoom hmm. ñaar muy ndaanaan boo xamante ni baawakat na ko adversaire yi jël léegi mu bëri adversaire ah, yi adversaire yi mu war a bëreel bëreel jam te pourtant waa ba jam teeri soq waaw lamb ju neex a ngi noonu soq yaa ngi lamb ju neex a ngi noonu champion la a bu mag boo xamante ne gars yi dañ ko war a jël ci biir lamb mhm. moom noonu di ko encouragé waat bu baax di ko wax ne ko lamb noonu la Babacar mhm. allah am na solo yaakaar naa ne grand sal loo loo ci bëggoon dolliwaat foofu waa mais wax na dëgg parce que moom ay combat am mhm. malgré dina gëj a bëre mais mësul bëre nga ne cam de déedéet waaw waaw du bëre lamb ju naqari lamb ju naqari du ko bëre da ngay ñëw daan ko wala mu daan la boo xoolee ko maam dina am xeex dina am bëre. Uh-huh. léegi am na promoteur promoteur bi dee mel naa la jóg dem doxal koy combat. waaw promoteur bi de. adversaire yi ki wax nii. mënuñu ko daa daan magi soog sax dafa daan jet li. jet li ah, moom la mujj a bëreel. voyagé kon mu ngi yi ki wax nii. waaw am na droit promoteur dem seeti noog waxtaan ak ñoom. waaw ah, bu neex la kii dafa jël defet si kii dafa mat sinil fële. waaw war nañ mun daje. lu ñoom ñaar ñëpp ay der lañ loolu combat bu neex la. kii daa daan magi kii jam teri war a war a ñëw fayul magam